ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu sant suñu sëriñ Seydi Aboubacar Sy radiyallahu anhu di ñaanal yàlla suñu sëriñ sëñ Abdou Aziz Amin yàlla na yàlla yokk leeram ak ñëw bi ñu ñëw ci Touba nag ab mu jot yàlla dafa def su màggal jotee rek ñu ñëw ànd ak mbokk suñuy xarit suñu am di jàmm ngir ñëw fii ci tuubaa santale yàlla suñu maam ju baax bi Cheikhul Khadim bisam bu tedd boobu nga xam ni def ko doon def rek ngir sant ci yàlla subhanahu wa taala looloo waral ci suñu ay ndigalu kilifa ñu ñëw fi ak mu jot dinañ ñëw balaa màggal bi su màggal tam ñu ñëw ànd ak suñu mbokk yi suñu xarit yi suñu soppe yi taalibe Cheikhul Khadim yëpp ànd ak ñoom ci màggal guddi gu màgg googu masha Allah xam nga tarixa yi moom ñoom ñëpp ñoo bokk jëmukaay ñoo bokk fu ñu jëm ñoom ñëpp ay taalibe Seydina Muhammad lañ sallallahu alayhi wa te ñun fi ñu jokk muy tarixa na Tidiane yi dañ ñu royloo dañ ñu jàppaloo képp kuy nitu yàlla te kenn weddiwul kenn nattaabalewul ni suñu maam Cheikhul Khadim nitu yàlla ak xam la wàllu yu kamal la ah, góor yàlla la boo xam ni ku ko am ci dëkk boo ko am rek da ko war a fonk man li ma gëm mooy suñu maam Cheikhul Khadim patrimoine international la àdduna yëpp ñoo ko bokk humanité bi ñoo bokk seriñ Touba eh, bu ñu ko yàlla joxee nag fii ci Sénégal te ñuy ay taalibe Seydil Hadji Malick dañoo bokk ci ñi nga xam ni dañoo war di ñëw di rafetal suñu liggéeyu mag ñi nga xam ni ay magu diine lañu woon ay magu yàlla lañu woon ba tax na lépp lu ñu la fii ci Touba rek dañuy ñëw teewe ko incha allah. waaw sëriñ mhm. euh, Mountakha moom gis nañ ko. waaye man yàlla moo def dama am cofeel ci moom. ngir mbaaxam ngir sellam. ngir ni ma ko gisee muy magum yàlla moo xam ne magum l'islam pire la ma gis li muy doxal ci dëkk bi ci wàllu réconciliation ci wàllu aide sociale yi muy def di taxawu askan bi yëpp ci ku am jafe-jafe ci bu nit ñi jaaxlee seen xel yëpp dem ci moom loolu dafa tax ma sopp ko bu ci des nag man dama bëgg magum l'islam dama bëgg magum diine te dama gis ci moom ay qualité yoo xam ni jar nañu fonk ko bëgg ko sopp ko saa su ma ñëwee ci moom rek daf may gën a jaaj sant ñu gërëm ñu ñaanal ñu yàlla rek ba at mu jot dañuy bëgg ñëw Touba di ko fa fekk macha allah. waaw ñii nag en dehors de seen métier làmb suñu ay frère lañ casquette mbër ñoom bu làmb jotee lañ koy sol mais bu làmb jeexee ay nit simple lañ ay doomu aadama lañ yoo xam ne suñu ay frère lañ. Balla Gaye suñu relation ak moom ñëpp xam nañ ko ay baaboo yeeg ñi nga fi gis ñëpp en dehors de leur métier ce sont des amis et des frères. loolu moo tax fu ñu jëm dañuy ànd ak ñoom ñoom tam suñu xewlee ci seen métier ñu taxaw leen loolu moo dox suñu diggante ak ñoom suñu ay rakk ñoo fi nekk suñu mag suñu ay xarit suñu ay soppee ak ñoo xam ne suñu am di jàmm lañ ndax yiw wi ñu wutal suñu bopp lañ leen yéene ñoom ñëpp ba fu ñu jëm rek ànd ak ñoom macha allah.